Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee raditu anil mawla ta'ala allazi rabba wa di wa nani gannaaw loolu nag ñu ngi dajale fii ci aéroport bi tey man ak dong yi ngeen gis ci sama gannaaw ak dong yi toog Khady Gueye mi ñu mm, nekk ànd ak man ci yoon wi yoon wi du yoon lenn lu weesu yoonu ndigal rek la ndax euh, bi nga xamee ne waa Gabon seen xel nekk na ci ziar bii ñuy doxi ñu war a jógee Libreville at mu nekk euh, toppaat tracé yi nga xam ne moom sëñ bi jaaroon bi ñu ko defee it sëñ bi daal di yees laaj ndigalam ci noonu moo waral jéego yi biñ dikkee fekk bokk caali bi yi nga xam ne moom lañ ñoom la ñu war a àndal dem ci bis boobee ñu nekk ci aéroport bi di ñu néggandiku ba tax noo ngi nii di waaj ngir dem foofu min kulli baatinin wa faaratu tadbiri bi dafa wal jalba raditu bi rabban kariman mukarriman وقاني الهدى والهرب والبار والتلبى جزائي على المولى بربي ذوي الفراق ولي وجه مالا بتسخيري سلبا نويت نار لتوبى باسمي واودعت جسمي jotaay bi ni ngeen ko gisee ñu ñëwoon fii ci aéroport Libreville ñëw teertu si euh, pèlerins yi nga xam ne nañ ci karawaanu yomba muy topp jaar-jaari sëñ Touba nii ngeen ko gisee ñu ànd ko ak commission bi ñenn ñi tamit xam naa xat-xat dax tax na munuñ teetee waaye daal tali bi yëpp àndoon nañ ñëw teertu si ñi nga xam ne ñoo jiitu ànd ak délégation bi jiite sëñ Koso Mbàkke ci ndigal sëñ Muntaxa gis ngeen ko ni mu demee gis ngeen mbooloo bi ñëw nañ xaj na heure bi ñu agsi xaw naa am retard ñenn ñi tamit war nañoo ñëw suba daal waaye li xew daal mooy Libreville gépp ànd nañ di béggee euh, taalibe yi nga xam ne ñëw nañ topp si jaar jaari sëñ Touba ci Gabon gi nga xam ne fi la sëñ Touba doon waxee yesaral lii mun naa laa daal li mberweli man xaari li maa xaba an kulli wali donc ça arrivait ça arrivait du Cameroun euh, du Tchad euh, un peu partout au Sénégal donc ça travaillait un peu un peu après c'est ainsi que beaucoup de Gabonais Euh, xam ngeen ne ku baax ki Cheikhul Khadim bi muy ñëw fii ci maanaam réewum Gabon mi ngi wàcc fii nga xam ne bu ñu jógee fii fa lañ jëm nga xam ne mooy maanaam fi nga xam ne moo nekk débarcadère bi ba mu fa wàccee wax nañ dafa dox ay jéego ci suufus Gabon ba benn béréb bu ne woon fii ñu ko daan wax malaayika léegi benn banque moo fa nekk fa la julli ñaari rakka ñu soog koo indi nag internet ko fii ci nga xam ne moo nekkoon quartier général bi te maanaam doonoon fi nga xam ne fi tubaab bi nekkoon ak seeni soldaar yooyu. ñaari fan ci weeru octobre ci atum 1895 la Cheikhul Khadim wàcc fii ci dégg nga débarcadère bii nga xam ne moo jàkkaarloog palais présidentiel bi léegi nii daal di dox ay jéegoom ci suufus Gabon daal di julli ñaari rakkaay fii nga xam ne moom lañ daan woowee ci boobu jamono ci ci ay jamono ci ginnaaw malaayika kon loolu fii loolu mooy maanaam solo si ñu xam ne kon ku Cheikhul Khadim daal bi mu bi muy ñëw Gabon fii fekk boobu mi ngi ñëw ci gaal googu ñuy wax la maanaam la ville de Pernambouc bi mu agsee fii la teer mu wàcc ci dégg nga débarcadère bi daal di nag dugg nag ci suufu Gabon si julli ñaar rakkaam yooyu daal di wéy nag ci quartier général boobu nga xam ne fa la woon ca ca armeel ya xew am solo yoo xam ne xew na fi bokk na ci yi nga xam ne xew na ci montagne sainte muy marale gi ñu ko marale woon ak garab gi doon ko jéem a fetal te yàlla sottalu ko loola tolloo woon ak bisub talaata ba mu bind ci wax ne wahaba lil wahabu fi salaasa maa yuxjulul asrata wa salaasa yàlla mi nga xam ne mooy mayaakoon bi may na ma ci bisu talaata loo xam ne day gàcceel fukki officier yooyu ak ñett nga xam ne ñoo ko doon maanaam fukki yeeg ñaar ñoo ko doon jëm a fetal ak seen kilifa gi nga xam ne moo leen fukkeel ak ñett euh, ci xasid ak waqaan yi xafiisun nga xam ne sax am na lenn ci gëstukat yi ñu jàpp ni fii fi Libreville la ko defee ma nga cay junjaat lu mel noonu di wax ne ajaarani al qahaaru min jumlati al idaar wa xaanatuhum wa wal madaafiu euh, yàlla mi ki nga xam ne mooy kiy not am yàlla mooy maanaam notaakon bi moo ma musal ci mboolem noonu yëpp ñoom ñu ñoo ñi nga xam ne seen xeej ya ak seen kanu ya da leen a wor da leen a wor waxaat na ko ci xasid ak rum naa sukuur allazi bil kaafi war nuuni wax na najawtu min fitani l aadaai id qasaduu nii bil madaafiu wa sakaakin Zeynabo soxna Balla Maam li tax amoo yow dendandoo tagle nga am ciy turandoo ngir koo fi bokkal turandoo kon tukki bii bu amul woon sunu dara du ko jar tukki bi bu amul nii lii xew tey du mën a xew ndax ñi ngi nekkoon au Sénégal amoon nañ ñeeneen ñëw Mayumba waaye xamuñu woon fu ñuy jaar soxna maam Diarra ak borom këram sos ko ba pare mu tegu it ci tànk yu loxo yu wóor muy ñoom Baye Cheikh Mbengue sëñ Kalam sëñ Bardo pour ne citer que ndax ku lim juum teg ko ci loxo yu wóor ñoom ñu ciy def liggéey bu mucc ayib bañ a guddal nag faaw ma sant soxna yi teew. kon nag di leen di sant bu baax ci teewaay bi di ñaan rek di leen gën a ñaaxi ndax xam nañ ñi ngi ci yoon bi waaye kenn bañ ñoo rek mën ci liggéeyu sëñ Touba bi ayasa minillah wa xinda jeewale iblis isnaditu bi yaawali bu ngeen gisee taxawaay bi mu peggoog sama loxo bi ndijoor Madiaw Diop la tudd moom mooy secrétaire général bi nga xam moo yore wàllu liggéey bi ci luy dugg ak génn moo koy bind kii bokk di Baye Ndiaga Ndiaye bokk ci chauffeur yi nga xam ni lu ñu soxla ci wàllu matériel di ko jënd ji moom mooy yor daamaram dem di ko jëli ji man mii taxaw di wax a génn nag maay Mandiaye Ndiaye Baye Fall yore carte barkeelu yi nga xam ni moom la bokki taalibe di di jaayante ci liggéey bi liggéey bi nag nin ko nasee ci ginnaaw bu nu amee ndigal ci sëriñ bi danoo ñëw waxteeg suñu magi taalibe yi ñu jox ñu ci ndigal ñu sasoo kenn ku ci nekk lim bi junni la tàmbalee dimance bu nekk ba ñaari junni ba lu man beneen bi ci des ñu defar carte barkeelu yi nga xam ni ngir bokki taalibe yi def ko julli la def ko tamit euh, képp koo xam ne yaa ngi dugg ci liggéey bi di nga ko dagg muy ñaar téeméer ñu def ko ci liggéey bi moom lañ ñëwoon fii di leen ko di leen ko yaatal ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp ñëw nañ ci yoon wi nga xam ne moom lañ tuddee sëñ Touba fii ci Gabon maire Albert Oyam bu deuxième arrondissement tuddee ko Serigne Touba mbedd bi nag mbedd mu am solo la fii ci Gabon ndax moom mu ngi bawoo ci kaw zone Sotega wàcc ci boulevard bi nga xam mooy boulevard président Omar Bongo bi nga xam ni mooy yaatal diine l'islam ginnaaw bu mu doonee président jébbalu dugg ci l'islam ni man je suis un mouride de cœur ni moom mouride la bu jox Serigne Touba ab xolam. te nag tey ci li nga xam ne. Euh, Euh, gouvernement gabonais wala maire Gabon maire gabonais jël nañ décision ci décision bi ñu jël muy décision bu rafet mooy ñu jël mbedd mu toll ni mii ñu nu mu toll jël ko tuddee ko Sëñ Touba loolu nag neex na na lool euh, te neex na sëriñ bi nga xam ne it fi yabal di sëñ Mountakha moom Cheikh noo ngi sant Serigne Touba bu baax di wax jërëjëf Serigne Touba di am mbégte lool nag euh, di ñëw fii ci Touba Bataveya fii ci kër Serigne Touba gi fii ci Libreville fii ci Libreville nekk ci waajtaayu euh, dem ci caravane Mayumba ñoo ngi nii jëm yoonu Mayumba ñoo ngi ni waaj xëy murit yëpp génn nañu mbooloo mi génn nañu oto yi génn nañu ñoo ngi waaj ah di xamal mbooloo mi ne euh, mbokki taalibe yépp yi nekk Sénégal ak yi nekk bitim réew di xamal ne mbokki Touba yëpp mbokki Njaareem fépp fu murit ne ci àddina Mbàkke Bari Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor ak fépp ak Daaru Muti tey am na nañu mbégte lool euh, ñëw fii ci Gabon fii ci Libreville euh, def fi ay bis jóge fi soog a jëm nag fële ca may ba nga xam ne fa la yoon wa gënoon a tare. la tey tey la démb ci waxtu wi ña màggal Touba ca ña màggal ca baar yi 10 août gi sëñ bi déparé woon démb ko màggal kon bu ñëwee fii ci Gabon ñu koy tayloo 11 août fas yéene fekk ji bëxru maa yomba ka nga xam ne fa la sëñ Touba demoon kon loolu doy na taw tawfeex ndax démb la sëñ Touba yendu jeewal waaw fanaan fa ba bisu tey bii nii waxtu wi ñu ngi xëy ñun ti dem maa yomba ci la sëñ Touba xëyee jeewal jaar kokki jaar Louga waa réew ma ne ko da nga da des nu xareel la sëñ Tuubaa neen loolu taxumaa jóg su ma ko daan defit banaa ko kon wane na ni moom daan na xare kon bu ne saxadid laaw bi indi waaxid min ahli badrin xaafa ni jaayidu kon loolu moo ko waxal boppam am mbégte daal lañ ci def ndax coono yeeg yëpp sëriñ Tuubaa teggil nañu ko ndax liggéey bi mu liggéey ngir ñun ñu jëriñu képp moom moo taxoon li yëpp am waaw ñoo ngi ni ci wàccaay bi ba fii ci Touba Matlabul Fawzayni ñu gën koo xam ci Touba Bataveya di waaja a nii di jëm Mayomba. kon mbokk yi ñi nga xam ni ñooy pèlerin yi nga xam ni ñoo war a dem ngir toppaat jaar-jaari sëriñ Touba fële ca Mayomba ak fële ca na ñoo ngi waajal pour dem ñun nag ñu jógee Sénégal bii mooy suñu ñetteel yoon ñuy ñëw di ko teewee ah ngir rek toppaat. ci tànk yi nga xam ne sëriñ Touba jaaroon na fa te mu waxoon ne samay tànk de fépp foo xam ne jaar naa fa bu ko fa topp doo fa gis lu ndam doo fa gis mukk loo may xeebe. xool yi seddati na xool yi seddati na xool yi seddati na mbokki taaliba yépp nga xamante ne danoo nekk fii ci dëkk bi nekk ci Gabon àndandoo nanu bokk ndey ak baay ñëpp jàpp ci liggéey bi foo séene dem maa yomba googu nga xamante ne sëñ Touba defoon na fa juróom. هدا سمتانني وكنزي وداب الحب يسف الكربا هداني لي ربي وأهدي بنوري إذا زاء ربي سوي البعد والخربى إلهي لا توضع يغني وسلما وجد بامتلال سما والتؤمني تربى فالبر والبار الذي قلت مينه ففي البر أبن الأمن والتكرم جنبا غلام لنا غلب إلى ما يسرني وفي بسر الأحياء روى في سنبا نجوت فراقي سرمدا جملة الهدى ولقيا إيالي منك يا من قد الأرباب كن ربي ولي وسيس بعد تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفرد وفيد يخجل الوبل منسبا إليك من المختار يا جرد بالهدى وبسنة البيداء يسرف نوس القوم والتسقني بها مواسي وابل المس يا ربي والعباد ليسرف كوس القوم والتسقني بها ووسي وابل المس يا ربي والعباد سلامي بالمسباي عني جلوتا عليه سلام كنت أدرك بمتي جار coono yim jànkonte woon te lépp ngir bëggan xeet wépp euh, sawe rek kon nag ñun bu ñu yàlla taw feexe da man jaar ci yoon wi sant rek la ñuy def di ñaan suñu borom mu nangu ñu lépp rek ndax sax am na solo lool إلهي ودي واجعل وجوهي لنا تبا موت بي عيبي فخذني من الهدى هجرت الذي قد كان يرجو إجارة فسد المدى والإمام والتكفين مدبان هديت الذي قد كان يرجي جعله عن في الأسرار يا ربي والمدبان لك الشكر والرضوان والأمن سرمدا ولا سكني في كونك الله والربان حاجة لك بسر وشكر المقادس وسلم مهنيا على المصطفى من نوره نهويا سبان أي الله يا رحمن عند الرجاء يا سمان له سناء وردوان بلا سخط مسخاد لي من بني ديمان أنصارا fi Mayumba Mayumba nag ci taarixu yoonu murit ak jaar-jaari sëriñ bi kenn dootu ko laajte ndax bu ñu ko tuddee gone yu ndaw yi sax xam nañu Mayumba mooy lan yàgg nañ ko dégg Mayumba nag di dëkk boo xam ne mu ngi nekk ci réewum Gabon ci wàllu wàllu bëj saalum gi la féete eh, dend itam ak ni ngeen ko séene ci ginnaaw géej gi nga xam ne moo di océan Atlantique bi eh, waaye itam eh, moom géej googu di fóonante maanaam di sësaloo ak li nga xam ne moo di li ñuy tuddee dexuk baño dexuk baño mooy dex gi ngeen di seen yi ci seen ginnaaw <coughs> muy dëkk boo xam ne kon dëkku dëkku ndox la bu xaw bu bu enclavé rawatina ci jamono yi nga xam ne ci la fi sëriñ bi di ñëw ndax booba diggante diggante ba waxtu wi rek ñun ñi nga xam ne bi ñuy ñëw ci oto la jaar ba agsi gis nañu bu baax a baax coono yi nga xam ne donte sax kenn maanaam ñi mu wut a tudd coono ndax li li nga xam ne moo ñu tax a jóg xam nañ ko bu baax waaye gis nañu daal eh, xëy yenn jafe-jafe yi nga xam ne dund nañu ko ci wàllu yoon wi te léegi sax wax dëgg yàlla macha allah neex na lool ndax man mii di wax ak yéen ci atum 1995 ci laa fi njëkk a ñëw ci janvier ba te booba weeru koor la woon booba daanaka yoon wi piste rek la boo xam ne ni da ngay eh, yéeg ko wàcc rek ba agsi bi mu fi ñëwee def na fi juróomi at lu ëpp ci tukki bi géej gi fii la ko def juróomi at yi bi ñu fi ñëwee bi ñu fi ñëwee te ànd ak Cheikh Mourtada ci atum 2000 booba eh, am na am na benn labbe tubaab bu ñu fekk bi ñu koy laaj xamal nañu ne sëriñ bi nga xam ne moo dend dégg nga mission bi fi la amoon néegam boo fii itam soldaar yi yeeg maanaam commandant beeg ak labbe yeeg di nga révérend kii euh, maanaam pasteur yi fi lañ nekkoon ndax ndax am na benn bâtiment bu ngeen di seen ne ci seen wàllu ndeyjoor foofa euh, fa lañ daan former pasteur yi ci la nga xam ne labbe bi leeral na ko booba itam saaru internat la woon boo xam ne buñu ma ne ñëw dañ fiy nekk ñu leen defal lu mel ne séminaire di leen di leen jàngal ak di leen former booba labbe bu mag bi nga xam ne moo nekkoon ci Luango ci Congo nga xam ne soriwut fii lool ñu ñu koy wax kari moo daan jóge foofu di ñëw fii euh, di di nga too loolu moom labbe boobu sax ci livre Omar Ba bi gis ngeen mu koy tudd di wax ne chargé woon nañ ko mission spéciale ci sëriñ bi donte leeraluñ maanaam dëgg-dëgg lan moo nekkoon boobu mission kon sëriñ bi ci biir quartier gi la ne woon dend ak soldaar yi dend ak euh, labbe yi dend ak mission catholique bi euh, maa ngi fàttaliku ci at moomu labbe bi bi ñu koy laaj ñu wax ci sëriñ bi di wax fi mu nekkoon ak yooyu ak fi mu fi nekkoon am na benn cloche bu ne fii boo xam ne boo ko xoolee en 1897 lañ defar cloche bi. nga xam ne kon bi mu fiy ñëw fekk na fi sëriñ bi la fi fekk ndax sëñ bi ko fi jiit ndax sëñ bi jàpp naa ne bu fekkente ne ay weer la def Libreville muy ñetti weer jëm juróom-benn weer léegi bu ñu jàppee juróom-benn weer yi kon mooy ne bi mu fi ñëw fekk na yi jeex na ba bañ dugg ci yi mu ñëw fi euh, loolu kon mu def fi lu ëpp ci li mu def ci géej gi bi bi bi labbe bi wax loolu ba mu yàgg maanaam kolos boobu sone mu ne dem leen ngeen laaj kolos bi mu da ko wax rek xam naa ci kaf ak ree mu ne dem leen ngeen laaj kolos boobu moom dana leen wax ni fi Cheikh Amadou Bamba nekkee woon ndax moom ñoo fi bokk nekk sëñ bi nag juróomi at yi mu fi def juróomi at la yu metti lool ndax ku gis fii léegi nii sax tabaarkàlla nga xam ne am na ay dëkkuwaay am na ay hôtel ñun bi ñëwee ci hôtel la ñuy dal dugg ci hôtel yooyu climatisé waaye bi sëñ bi nekk nga xam ne booba climat bi taw bi bari bi ak li ñuy tuddee ay godd ak mutu mutt yi ak yi nga xam ne day matt yooyu bari woon na fi lool sëñ bi doon jànkonteeg loolu lépp te kenn waajalu ko woon comme ñoom tubaab bi ni ñu daan waajale seeni seeni seeni colon ndax colon yi fi daan ñëw bu fi daan ñëw dañ leen di waajal ci col gi ci dëkkuwaay yi ci lekk gi Eh, ci ci lépp rek ci wàllu médical ba nga xam ne bu ñëwee danañ mën a jànkonteeg maanaam climat bu humide bi humide lool bari ndox lool bari ñax lool am na ci ñax yi ñax yoo xam ne rek dafa am tooke am ci ñax yoo xam ne dafa dafa dafa ñaw mel ne lañ nga xam ne dafay dagge yooyu yëpp sëriñ bi di jànkonteeg moom waaye téewul rek yàqalu ko woon dara ndax loolu la bëggoon moom li mu bëggoon mooy li ne woon géej mooy wéet mën a jaamu yàlla mën liggéey sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu ko bëggee moo tax juróom juróomi at yi mu fi def ñenn ci laa mujj mel ne ab jant tiim ñëpp. andi naa fi sëñ Cheikh ndigal nag ci benn jamono bi mu demee fële dañuy tubaab yi lañ waxoon ñoom seen mbir naax saay na waaye seen mbir la la sax ndax xas da yaa ngi jóg ñu fi jullee ajjuma di fi julli waxtu juróom di fi wàccee kaamil alxuraan kon sëñ bi moom la mu waxoon la mu gennal yàlla ga mu waxoon sax na waaye ñoom ñoom la seen yëpp saxatu ndax ñoom ñoo bàyyi seen i ñoo bàyyi seen i bâtiment ñoo bandone ñoo fi nekkatu daa xam naa loolu ay kii la baax ci bërëb bu teel bërëb bu sell bi nga xam ne yàlla dogal na ñu ngi fi muy euh, fii ci Mayumba nga xam ne fi la ku tedd ki nekkan yàlla dogal mu def fi juróomi at ba taxan na nag mbokki taalibe yi dajaloon euh, euh, def karawaan boo xamante ni ci euh, ndigalu Serigne Fallou Bousso yàlla suñ boroom borom yokki ay leeram taaf ñu ci barkeem ak soxnaam soxna jaar Bousso nga xam ne liggéey bi ñoo ko sos. waaw noonu ko naar waxee muy membre boo xamante ni membre clé la ci wàllu transport muy wàll gi nga xam mooy moom la ñu féetale. ah ñu def ci nag liggéey boo xamante ni liggéey bu amaam solo la ndax dañ cee teel a jóg maanaam ah, teel koo saytu bu baax ngir maanaam liggéey bi bañ a am dara lu sooxe maanaam ah, ci wàllum ah, oto yi nga xamante ni moom la ñu war a jël muy buus yi. ñoo xam ne nii dañuy dem ba à la dernière minute ñu inscrire boo leen waxee ni leen yëf yi jàll na bu yàgg ci tele yi ñu naan la man kat damaa bariwul lu may faral di seetaan tele waaw maanaam site internet daal xam naa ni moo ëpp lu nit ñi di consulter ci ay xibaar yi xew ci at jamono ji àdduna bi lépp fi mu nekk nii kon fës nañ ko ci gën a yaatal bu baax ci site internet yi. fii na nu daje tey tey mooy Mayumba fii la seen bi jaaroon bii ngeen gis nii ñi ñëpp taxaw fii ñu ñooy waa restauration li nga xam ñoom ñoo yor wàllum xéwal gi ñoom ñoo yor wàllum xéwal gi ñu nekk fekk staff bi yëpp. ku si mel ni suñu jigéen nekk suñu wet naan ko soxna màgget Gueye di wax aussi le responsable de la cuisine Youssou Fall ak Ablaye Thiam ñun ñoo yor wàllu dispatch mais ñun ñëpp ñooy liggéeyandoo ensemble. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax bàyyiwuma kenn waaye maa ngi tàmbalee nag ci ki nga xam ne moo nu dalal tey fii ci dëkk bi waaye dalal nu fii ci barab bi ñu taxaw di meeru Mayomba di nuyu itam. ñi mu àndal ci ay député ak ay sénateur ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci dëkk bi am na baat bu ma wax bëgg naa mu gën a leer mooy jumelage bi nga xam ne ñu ngi koy soxla di ko bëgg diggante Mayumba ak Touba. Le chef insiste sur un mot jumelage avec le verbe jumeler j e e il le répète. Et ceci doit voir le jour dans les conditions les plus rapides pour porter l'ensemble des projets de Touba vers Mayumba et porter l'ensemble des projets importants de Mayumba vers la ville de Touba. Idi Cheikh. gannaaw loolu itam nii ma fi taxawale sëriñ bi ànd ak sëriñ Xaadim ak sama bokk yëpp sëriñ Moustapha noonu lañ fi taxawalee Soxna Bali. على نغل رجاء بجاي عبد لمن لله خير لجاء حبيب ما يشرع علقى نغل فجاء بجاي عبد لمن لله خير لجاء عبد الله رب ترى إلا ذرا كلا وقادر على يومان رضاتي أن ملا محمدا صلوات الله عبان علي في حزبه كل بكلا ki wax yi lay béy du koy waxantu mooy xaadimu rasul magum seexanta ki wax yi lay bayit du koy waxantu déedéet mooy xaadimul rasuul magum seexanta te mooy magum sëriñ Masamba Mbàkke te mooy sëriñ bu mag bi fii fi Mbàkke te mooy magum sëriñ Masamba Mbàkke te mooy sëriñ bu mag bi fii fi Mbàkke te mooy ke Seex Ibra ba gis ko boole ruwaam nga ak jëmmam jébbal ko te mooy ke Seex Ibra ba gis ko boole ruwaam nga ak jëmmam jébbal ko te moo dajeeg caama jëy sa ñu xuus ci géej gii ba caama dag sa sin ñëw gabon ñëw fi ñu naa maayamba koy durus di way ba ñu ñëw gabon ñëw fii ñu naa maayamba te tiiwu koy durus di way yenen ba ñu ñëw gabon ñëw fi ñu naa maayamba te tiiwu koy durus di way yenen ba ñu wër ba sonn jaaxle ngir fexeel ko ñu fër ko jël delloo si fee siñal ko boobee la way munawiru suduri la daa manazili wa inda duuri na samoo xadimu amma dëg sa sin bë dal ana min jëy sa li jëg sa moo tax sëriñ daara ba seex moor siise moo jot ndigal sotti ko fii xirtaas yi dafa salaam jamiy siñee ca booba jibbal ko seex fëllu mu bég ca booba moo tax ba seex fëllu foto jumaa ji def ca foto sëriñ bi ak jumaa ji def ca signature di aaye njaay mi xam na ne lii njëgam amul ci réew mi. Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon, Tawfekh Production. ليس له تماثل ولا افتقار بل هم ماثلوا عملي لباق جل عن تعدد وعن توالد وأد وتدي qu'on a vu au monde en 1853 et qui nous a quittés en 1927. 1995 et qui a rejoint le pays natal, le Sénégal, le 11 novembre 1902 à Dakar. Aujourd'hui, de 1927 à 2022, nous sommes à 93 ans de son départ. Nous à 7 ans pour le centenaire de Serine Touba. Et nous avons un petit arrière-petit-fils, qui conduit une délégation importante en compagnie de grands responsables au niveau administratif, au niveau institutionnel, mais au niveau religieux. Ces autres sont venus pour marquer l'étape de Tambaréné dans cette caravane sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul au Gabon. Mesdames et messieurs, Cheikh Ahmadou Bamba est un savant musulman de nationalité sénégalaise qui a été exilé par les colons dans le but de le détourner de sa mission qui était de répandre l'islam dans le monde conformément aux recommandations de son bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Mais cet exil n'a fait que le réconforter dans sa mission et le colon a alors échoué son plan. tënk rek lu gàtt doon. Euh, sëriñ bi mooy nettali boppam moom bi mu fi bi mu fi ñëw ak ni mu fi ñëwee bi mu jógee maanaam dafa xam ne dugg naa ci dem naa ci dun boo xam ne nag bu ma fay dugg coono laa fa duggee loolu il faut ñu di ko leeral ndax moo ko bind coono ba sax day wax ne metti ga lenn rek ko gën a metti moo di ruu gu génn ci yaram loolu rek moo gën a metti coono bi ma daj fii mu waaye nag sant yàlla am na ci ndax lii représentant maire doon wax léegi dafa mel ne sëriñ bi dafa gisoon jataay bi ak jataay yi mel ne moom ba tax bi mu nettalee loolu ba àggal ci ci téeréem boobu mu tuddi Jazaa Shakur Latouf j'ai teg ne waaye yàlla defal na ma ci suuf suuf lambar na soos yi nga xam ne ku xam farata wala sunna nekku fa ba ma fay dem moo ko wax léegi xëy na wuute léegi ndax macha allah imaam a ngi fekk suñu bokki jullit yeeg suñu bokki taalibe yi di ziar bu baax nag Eh, waaye nee na jamono booba laysa fiiha ay fi ardi lambarana man yaarifu bil fardi wala bi sunna amu fi woon waaye lam ci teg nag mooy suñ jataay bii nag fa sirtu fii wala inda ahli tilka al ardi mubajjalan muxtaraman mukarrama loolu kon hmm, moom sëriñ Seexul Xadim mu ne ma mujj mujj naa nekk ku ñu màggal ku ñu wormaal ku ñuy teral ci suufu islam bala na tabjil booba ak ixtiraam booba ak takrim booba jàpp naa ne suñu jitaay bii ci lay dugg ak yeneen jitaay yi ñëw ndax ku dégg lii ki fi teewal maire maire bi wax te fàttali nañu 2000 bi ñu ñëwee fii ci maire bii ci biir maire bi ànd ak sëñ Lamine Mbackeem Cheikh Matoda ci njiital sëriñ Fallou Moussa Baye Fallou ñu jógee Libreville ñëw fii maire bi fi tekkoon jigéen la woon keroog moom ci boppam si sëñ Cheikh Mbeng du ngeen ma weddi fekk ngeen ko moo wax ci làmmiñam ne seexaleet na ak Touba laa bëgg kenn proposé wu ko moo ko wax image yaa ngi fi ak ak ak son yi ñu noppi mu ne damaa bëgg ñu dem ci colline de la paix bii nekk fii ni nga xamee ne docteur Albert maanaam Schweitzer mi ñu tudd léegi te docteur allemand bu ñëwoon fii bañ tudd ko fii ab hôpital tudde ko hôtel bu ne fii suñu ginnaaw ak ay ay ay ni mu ni mu fi amee cër boobu bëgg naa Cheikh Amadou Bamba itam amee fi cër bu maanaam boo xam ne day toll noonu. Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd ak ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee.